Ahmadu xayru naas imaamul anbiyaa yi gaañi xam nañu la xayru naas auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim rabbi israh li sadri ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يسوى قولي أما بعد الحمد لله هداني ثم إلى طريقة الشيخ أبو محمد عبد القادر الجيلاني لشيخنا شيخ سعد الأبيه خير سلاجة الوجه ani nabi mu alhaashimil mudari asalaamaaleykum mbokki àdduna waaye asalaamaaleykum yéen ñi nga xamante ni yéen ngi ñuy seetaan ci seen émission bu màgg bii di royal ci moom saa su nekk ñuy ñëw di ànd ak ki nga xamante ni mooy suñu ganu bés ñu dalee ko ci li nga xamante ni moo di émission bi de tabaarakallahu tey nag euh, ñu indi leen jëmm joo xamante ni ñëpp xame nañ ko mu di tawféex fa tabaarakallahu di taalibe Cheikh Béthio Thioune maam Bambi Thiam mu baax mi fa tabaarakallahu ñu fas yéene nag waxtaanee roy ci ki nga xamante ni nii fa tabaarakallahu moom la ñuy indi tey fa tabaarakallahu bu ñu ko waxee rek duñ ci sori mooy ki nga xamante ni moom moo tax ba ñu ni tawféex ma fa tabaarakallaahu feex damay jóge foofu rek daal di lay nuyu maa ngi lay nuyu. waa ñu ngi leen di fay bu baax euh, suñu jëriñ ju baax ji te di leen di béggee tey waxaat jëfat Serigne Saliou Mbacke di ñaanal Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou mu yàgg fi loolu te wér e, di ñaanal bu baax Serigne Sidil Muxtaar mi fi bàyyi ko bu yàggul suñu borom dolli ay leeram te taas ci barkeem. di ñaanal sëriñ Muntaxa Mbàkke xalifa général kullu murit mu yàgg fi lool te ci barkeb sëriñ Saliou ñu ngi leen di nuyu bu baax di bég ci mbooleem waa Dakar Midi yëpp te di leen ziare fa tabaarakallaahu feex tey yaa ngi fii ci dakar midi point net fa tabaarakallaahu ci émission bu màgg bi comme nañ la ko waxee mu di royal ci moom royal ci moom nag saa bu ñu ko indee rek mooy dañuy indi jënn jëmm ñu waxtaanee roy ci ki nga xamante ni moo di sangu-sang yi sayduna muhammad waaye roy ci ki nga xamante ni ci nga jafandu bu comme ni ma ko ba tax ñu naan kii mooy tawféex kooku mën nga xamal mooy kan waaw waaw loolu moom xam naa sax xam ko du yomb waaye am na lu nu xam ci moom muy sëriñ Mbéthio jàmm Serigne Saliou ndax ci moom la ñu jafandu Serigne Saliou boole nu ak moom mm-hmm. eh, nga xam ni li ñu xam ci moom rek premièrement Cheikh Béthio moom boo ko tuddee rek ci saa si sa xel Serigne Saliou lay dem soo ko tuddee ci saa si sa xel ci bëggam sëriñ Saliou lay dem ci saa boo ko tuddee sa ci jëfam ci Serigne Saliou lay dem kon kooku waxuma la man rek waaye ñëpp roy ñëpp war a roy ci moom ngir ni mel ci bëgguk sangam ndax nit bala ngaa mën a jariñu ci sa sang faw nga bëgg ko ba yegg ci sopp ko te moom noonu lay doxe kon moom bu amee lenn loo xam ne dañ koy jël ba lu ñuy ñaan mu dal ñu ci ni muy doxee mooy ni mu bëggee Serigne Saliou ñun ñu bëggee ñu bëggee ko noonu ñun waaw ndax loolu la ñu Serigne Saliou digal ndax moo ñu digal ñu jàpp ko moo ñu digal ñu gëm ko moo ñu digal it ñu topp ko waaw. mbokk yi ngeen dégg loolu moom moo ñu digal ñu topp ko moom moo ñu digal ñu jaamu ko wala moom moom moo ñu digal sax ñu ànd ak moom ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune kàddu dégg ko ci tawféex mu baax mi waaye tawféex tabaarakallaahu bu bu ma la doon laaj tey parce que dama lay laaj li nga xamante ni mooy Serigne Saliou dama naan la kañ la ànd ak ki nga xamante ni moo di Cheikh Béthio Thioune. waaw Serigne Béthio kañ la ànd ak Serigne Saliou. Euh, bu dee ci Zahir ci lu nu mën a xam mooy keroog ba sëriñ Saliou rombee ca toolu baayam ba di bàyyi kulli mm. di bis bi muy waajal di la 17 avril mm. euh, yaakaar naa 1946 booba sëñ bee ngi am juróom-ñetti at la ko Serigne Saliou romb muy 8 mu daw topp ca wëttiir wa àndam ak Serigne Saliou ci Zahir boobu la boobu la tàmbali ci Zahir. boobu la tàmbali ci Zahir ñu gis ni sama sëriñ sang bu baax ba Chérif Bakhayre daf may faral di wax ni ma donte sax boo nekkee ci àdduna bu fekkee ay mbaam nga bëggoon wala ay xaj nga bëggoon wala ak lu mënti bëggoon ci àdduna fi ñu toll ni di dem ci àdduna di dund ak ñoom ba dangay ngay dem ba mel ni ba nuru ñu nuru ñooñule foo gis taalibe Cheikh Béthio Thioune da ngay xam ni kii cantaakunt la lan mooy secret bi. waa mooy. Euh, foo gis taalibe Sëñ Béthio xam ni taalibeem la bari ki démb dama dugg ci benn oto am ñu ma duggandool kenn ki wàcc ni ma jëriñ xanaa cantaakun ma ne ko waaw mu ni ma bétt ma mooy li nga wax ngir sunub sëriñ daa doon koo xam ni saa su ne day xool ni jamono yu doxe mu ñuy wax ni nañ doxe noonu danoo yar ci ak taalibe hmm. danoo yar ci bëgg suñu bopp mm-hmm. danoo yar ci ak silwise mm-hmm. danoo yar ci liggéeyal Sëriñ Tuubaa mm-hmm. moo tax foo nu gis rek da ngay xam ni ñi ay ñoñam lan loolu nag ñu ngi koy sant ndimbala ma ñu ngi ko koy sante kon kooku mooy jaamu Serigne Saliou Cheikh Béthio nga dégg li nga xamante ni tawféex wax na ko ci moom tabarakallah mooy li ma lay wax léegi rek donte nit ki sax boo koy nuru nurul da ngay mel ni moom moom xëy na jëmmam it ci Serigne Saliou la nuru mais tey jii nii lan ngeen àndeek moom ci ci parce que tey jii nii nit a lay woo ci tarixa ànd ak yow ci dëggam fecc ànd ak yow ci diine lislaam kaay ñu jaamu yàlla nit ngi ànd ak yow tey ci comme moom cant la woote fa tabarakallah moom Cheikh Béthio Thioune waaye mu bëggoon a xam ana lan mooy fondement wu cantaa gi nga xamante ni moom la ñëpp di woote parce que nee nañ ñëpp nee nañ cheikh bi nga baal ma ci waxin bi ni moom jàngul moom lépp lu muy def rek Serigne Saliou la koy la koy defee. waaw xam nga li ñu ànd moom fi ne du kenn ci ñun ñi ànd ak moom ni sax njàmbaar la indi ci moom. ñi toogit dikkunu du seenug yaafus moo tax ñëwul. ànd bi ak moom Serigne Saliou la soob. ndax moo ko waxoon ni ko danaa dugg fu ne jël këf fa gën tàqale ko sa jëmm ji mooy li nga laaj sànq fi ne boo duggee ci kër sax ñaare cantaakoon ne ak ñeneen ñoo xam ne bokkut ak ñoom boo duggee rek moom da koy daal di ràññee ngir loolu mbirum Serigne Saliou la fi mu ne du sunub jublu Serigne Saliou daa waxoon suñu beccu ni ko mbooloo mi nga àndal bul jàpp ni sa jublu la baa jublu sama jublu la man sëriñ Saliou ànd gi ñu ànd ak moom li ko fondement mooy ndimbalum Serigne Saliou. ngay mën a am la la Serigne Saliou di dimbalee nga soog koo topp. ndax ak ñàmbaar topp ko ak yaafu bàyyiwu ko. ndimbalum Serigne Saliou rek mooy tax nga jàpp ko. jàpp seex bu mel ni tey sama xel dem na ci ñu baal ma ci li nga xamante ni nii moom la yeneent bi moo ko daloon ak fa tabaarakallaahu soxna Aïcha bi bi pusab yi réeree ci moom. tabaarakallaahu ngir ñu gis puso bi yeneent bi dafay ree leer gi balli ci biir xayma bi nga xamante ni fa la yonent bi dëkk ngir ñu mën a leeral ñu feeñal puso boobu mu mel ni kon tey da bëgg a wax ni cantaa ci biiri mu nawleem ci biiru nawleem dafa mel ni rek benn soow boo jël ci ab sër bu ñuul nga toqatal ko te noonu lay feeñee ci biir mbooloo kon noonu mooy cantaa fa tabaarakallaahu ngay taalibe Cheikh Béthio nag ñu ràññee la tawféex ñëpp xam la fa tabaarakallaahu ñi la xamit war laa xam ana kan mooy tawféex li nga xamante ni moom la Serigne Saliou jox Cheikh Béthio mu yàq ko ci moom yan ko la. waaw li ñuy sant sëriñ bi mooy sëriñ bi defal na nu e, ñu am ak taalibe mm-hmm. maam bu ma nee am mooy mu ñuy dimbali ñuy góor góorlu ci ak taalibe ndax ak taalibe lu ñuy dimbali nit la mën ngaa jàpp ni am nga ko sax fekk des na waaye sëriñ bi dimbali nit ba ñu ngi ci ñu ngi ci nab nabi di ko jéem di jéem a amuk taalibe di sàkk mu defal na ko defal nañu tamit ñu bëgg ko defal na it ñu wóolu ko defal na nañu ñu gëm ko kon loolu rek daanaka doy na ndimbal def na ci ñu nit ak ubbeeku ci way sëriñ Saliou te ñu gëm ni lépp moo ma ndax biñ doonee ay gone ba mat a jàng moo nu jël jox ñu Serigne Saliou Serigne Saliou tarbiyenu ba làqu ci Zahir ba def secret bi ci Zahir. ñu dellu siwaat ndax Serigne Saliou moom la ñu mus a booleel ñu dellu siwaat ànd ak moom mu ñuy liggéeyloo di ñu jëfloo ba defal nu ak ubbiku ci way yi ñuy way ba tax ngeen invité nu tey fii ci seen plateau bi sant nañ ko ci bu baax ndax lépp mooma maam daal ci gàttal loo gis muy lu baax nga xemmem ko ci sama jëmm ji xamal ni moo ko ci def leneen loo gis nag lu bokkut ak noonu xamal ni sama yëfi boppa waaye lu baax loo gis ci man rek di ko xemem xamal ni moom waaw mu mel ni kon sëriñ bi fa tabaarakallaahu ngeen dégg ko tawféex daf la bëgg a wax ni la sëriñ bi su ma déggee wax ji mooy dara amul daray bon lépp yi baax la fa tabaarakallaahu macha allah waaye tawféex ngeen dégg ko nee na leen moom cantaa la di woy sëriñ saaliwu ba bëggoon a xam woy yooyu lee ci xasaayit lay tegu wala ci baatum wolofal comme niñ nee baatu canta ndax buñ nee cantaa rek mooy da ngay sant sant gi nag dafa bari façon mën nga koo indi ci xasaayit mën nga koo indi ci olofal comme quoi que mën nga koo li nga xamante ni moo di beneen fàllun wayin bi nga xamante ni nii léegi moo di wayin jamono léegi ma bëggoon a xam cant yooyu ak loolu nga xamante ni moom la la jàngal ndax du yow rek laa njëkk a gis ci njabootu koo xamante ni nii Cheikh Béthio moo ko ko jox fa tabaarakallaahu Cheikh bi ba mu yaral ko boppam yóbbu ko ca daaray Serigne Saliou indiwaat ko ci loxo Cheikh bi kon mu mel ni yéen ñëpp ma xoolee ñi ci ëpp ci yéen ay goney daara ngeen kon xam-xam gi moom ma nga fa waaye ci ban wàllu woy nga nekk ci tagg gi nga xamante ni moom ngay tagg ak cant gi nga xamante ni moom ngay can waaw xam nga wayi moom sëriñ bi dimbal nañu ci xasaay di mën nañu ko waaye ni ni waaye nga xam ni mooy wolofal kon ni ko suñ Moussa daan defee ba suñ Ba bàyyi neen mag ñi mm-hmm. ndax sëriñ bi daaw woyoon yonent bi ci arab waaye ñun kon léegi ñi ëpp ci ñun ay olof lañu te daanaka olof bi lañuy déglu moo tax ci olof la ñu ubbi ñu wax ak nit ñi. Hmm, macha allah macha allah te dinaa leen dénk dara yéen ñi nga xamante ni yéenay samay nawle tàggat Seydina Muhammad ndax dama leen fee toogal rek soxna Ndey ma wax la dara képp ku fi baax rek ci bi nga tàgg naam yàlla moo jël alquran wàcceet li nga xamante ni moo di arab ci looxaam ci langage moom mu di al alquranul karim waaye ñu bañ a fàtte ni alquranul karim googu macha allahu langue la rek mu di arab boo xamante ni ay nit ñoo koy làkk kon ñun dañoo déggee suñu olof bu ñu amati complexe ci li nga xamante ni moo di olofal gi. Mm. bu naam nag olof gi na basé wu ci li nga xamante ni moo di tagg yonent bi ndax lu waay wax. doo mën a passé kii moo baax mm. bu ko defee tawféex dañuy jóg rek ñu ànd ndoog yow nga may ñu leer yooyu nga xamante ni indil nga ñu ko tey indil nga ko waa Dakar Midi ci li nga xamante ni nii moo di royal ci moom déglul ma fentati waawaaw awayati yee ni mu xettali ñu na bunt yi ndax la gaaña bëggoone sëñ bi yow la ko jox sëriñ bi yow la ko jox yàlla sant ñu naan da ngay wanewu lii ñu am ku ko am dëkke wax nanu wax ñun dananu wax ba xutiku waaye laata wax na nga jëf te ba jëfee na nga wax lii la yàlla defal xamal ni ci la di ndeysaan wax ji donte cat la ci ñun kon de cat la li gën donte cat la ci ñun kon de cat la li ni wax di yokk bu bu dee cat eh, la li Serigne Béthio Xabu Taal bi Isa Serigne Béthio Xabu Taal bi ba ci wajax luy waral yeesu dugal nu ci sëñ beejo lépp luy waral yeesu dugal nu ci sëñ beejo di boo dogoo mu am cuun dogul nu ci sëñ beejo ngir sa yoon wi ñuy dem ñu bokku ci sëñ beejo ak ñoo ngi nii donoo aajowoo ndimbal sëñ beejo ci musal nu ban sax ak ci say ndigal sëñ beejo taalibe amul moom lu dul ndigal sëñ beejo sangam joxe mu laa laa sëñ bee jox waaye nag bu dee sëriñ bu mat sëriñ sëñ bee jox ñu ne sunu bu sëriñ daa mat sëriñ sëñ bee jox boo jëfee ndigal daa di dajeeg mbégam sëñ bee jox te boo dajeeg mbégam mu yokku say ngërëm sëñ bee jox jébbalul taxoog moom di dem ca moom sëñ bee jox jébbalul taxoog moom di dem ca moom sëñ bee jox mooy ci ma Sëñ Béthio nañu saxoo di ñëw di indi addiya Sëñ Béthio kon ba noppi sant la Sëñ Béthio nañu saxoo di ñëw di indi addiya sa cant Red. macha allah macha allah fa tabarakallahu fa tabarakallahu ngeen dégg loolu nga xamante ni moom la ñu sang bi indi fa tabarakallahu mu di tawféex tawféex ma bëggoon a xam way yi nga xamante ni mu di waj ñetti way nga xamante ni yëngal na yëngal na askan wi yëngal na ñiy seetaan yëngal na fa tabarakallahu ñi nga xamante ni ñoo di caméraman yi tabarakallahu ñetti way mooy yan woy waaw way yi bi ci njëkk mooy déglul ma fentati way Serigne Saliou ci moom nga ko fent waa Serigne Saliou way ko Serigne Saliou ba yu jeex mm. ñu sant ko ci mm. wax ay wax yu mu wax sunu sang bi Serigne Béthio jàmm Serigne Saliou macha Allah ca refrain ba mm. ñu leeral ci ni foo jege di fa jage soo amee ndimbal waroo dootoo fa jóge waaw te ñun suñ Béthio lañ jege falanu jege moo tax ñu ngi ñaan mu dimbali nu ba saxal ñu ci keppaaram bañ bañu ti faa jóge Eh, bi ci tegu mm. di waaye yi nga xam ne waa Dakar Midi ko moom duy catu. mooy muy jugal te sant ko nag. Mm. cat waaw cat ndax cat daa doon ñaari cat. Mm. cat lu baax daa am ak cat lu bon. kon cat lu bon li moom yàlla nañ suñu borom musal. waaye sëriñ Saliou daa waxoon suñu mbéccu ni ko. réew mi moom fexe nañ ba. def leen ay complexe ba kenn ñeme ñemeetu la sant ndax ku sant ñu naan dangay wanewu ci loolu laa way moo tax ma ni cant ak wanewu yàlla rek ku ko xam daal ni réew mi nag ku fi sant ñu naan dangay wanewu ci loolu laa ñëwee daal waaye nag ñun ñoo koy wanewu ndax li ñu am ku ko am dëkke wax na nu wax ñun danañu wax ba xutiku daal laata wax na nga jëf te boo jëfee na nga wax lii la yàlla defal waaye xamal ni cell la di cat maanaam ak noppi cant la ci la ci dig cat mooy noppi. beneen bi ci des mooy li ma woy ci yeesal gi ndax sëriñ Saliou bi mu toogee dañ damaa fas yéene yeesal yoonu murit daal di jox leen ma ndaw ñi ma def ci ñoom lu sëriñ tubaa defoon ca mag ña. donte yëllowuma ko ma barkeloo ko. bi mu noppee ba def loolu ba noppi nag. soog a indi jëmmi suñ becco ji. ndax boo seetloo euh, Serigne Saliou li mu def muy tarbiya. ak bay loolu ba yoonu murit sosoo ba léegi jugu ci ba ni may waxee yow jugu ci waaye li xam ne gis nañ ko ci yoon wi te amu ci woon mooy li nga wax sànq mooy Sëñ Béthio gis nañ ni sëriñ la boo xam ne mel na ni jàngul wala bu dee jàngit nasaraan la jàng te teewul sëriñ Saliou def ko nii mu ko def te te te ñëpp nangul ko ko yàlla sax nangul ko ko sëñ mhm. moo tax Euh, way wi loolu laaj jubloo wane muy yeesal gi sëriñ Saliou mm-hmm. yeesal yoonu murid waaw tawfeex fa tabaarakallaahu ñu leeral comme ni nga ko leeralee noonu rek macha allah ñu gisee ko ñun ñëpp noonu ñu bañ a fàtte nag yeneen ci Dakar midi point net fa tabaarakallaahu mbokk yi ci émission bi nga xamante ni mooy royet ci moom ñu ànd ceeg sëñ tawfeex fa tabaarakallaahu taaliba Cheikh Béthio Thianta léegi ma bëggoon a xam ana kan mooy tawfeex moom fan la juddoo. man de tawfeex Dakar gii la juddoo. ndakaaru gone Dakar nga juddoo Dakar doon cantaar doon taalibe tarbiya liggéeyal sëñ bi. waaw man man man sëñ Béthio ma uuf tudd ma. macha allah moo ma ngénte. fii Dakar fii. waaw sama rakk di Serigne Saliou xéwal it mag ji nga xam ne mooy sama taaw yaay di Serigne Saliou xel ko moo ko uuf tudd ko moo ko ngénte sama mag di sëriñ Saliou Lagan sëñ Béthio ko uuf tudd ko moo ko ngénte. ñun sama mag sama rakk di Serigne Saliou njàppandal sëñ Béthio ko uuf tudd ko moo ko ngénte sama mag di Serigne Saliou njurul suñ Béthio ko uuf tudd ko moo ko ngénte. maanaam lépp la maam damaa yem foofu rek damaa yem foofu waaye lépp ci njaboot ah, te ñi ma tudd ñëpp maa ngi di nuyu. Mm-hmm. te di leen ñaanal ñëpp say mag lañ ñoo bokk ndey ak baay. macha allah eh, te loolu ñu am. Mm-hmm. sama sama sama waajuru jigéen am ak njaboot ñëpp tudd Serigne Saliou. am kenn ci tudd Cheikh Béthio te kooku Serigne Saliou moo jox ndigal sama waajur wu hmm. góor ni ko nag ko tuddale Cheikh Béthio ndax man Cheikh Béthio eh, ginnaaw taalibe gi ndax hmm. taalibe gi lépp hmm. day sama waajur ndax mook sama waajur wu góor seen ñaari waajur a bokk nday ak baay sama waajur la waaw waaye nag liñ jiital ca loolu lépp mooy taalibe gi ndax moom ak taalibe tax a jariñu ca moom su ma déggee kon ma ngeen dégg ko mooy tawféex nee na moom cheikh bi way jur la ci moom moom deret la ca moom fa tabaarakallaa ba bëggoon a xam fa tabaarakallaa est-ce que yaay ya dañ daan woy wala baay ya dañ daan woy wala waaw jërëjëfe Serigne Saliou moom daanaka yëkkati ko way sama baay bokk na ci ñu ko njëkk a def ci réew bi alaaji Cheikh Mbaye moom Serigne Saliou mooy waajuru Modou Galas Mbaye mi jàng xam naa war nga koo xam. sama xarit waaw maag moom ñoo bokk benn baay. Mm-hmm. maa ngi koy ziare bu baax sunu waajur euh, jàngkat bu mag la woon ci réew mi ci beneen tariixa sax bu bokkut ak wii waaye fii nag la la gën a feeñe Dakar Midi li muy créé dafa doy waar parce que yow boo mënee yàgg Modou Galas Mbaye bokkee ngeen bàyyi rek kon yow bokkee nañu maam ndax tabaarakallaa loolu beneen fànni la dinañ ci waxtaan waaye daal Dakar Midi mën naa indi lu nekk rawatina émission bi mbokk yi ndax dañoo bokkee ay maam ca fa tabaarakallaa ca dëkk ba euh, fa tabaarakallaahu mbokk yi loolu mooy li nga xamante nii moo fi xewoon mbokk yi loolu mooy li nga xamante ni moom lañu fi indiwoon sa kàddu gu mujj waaw sama kàddu gu mujj mooy di santaat Serigne Saliou di ñaan Serigne Béthio Thioune jaamu Serigne Saliou mu yàgg fi tey ñaan bisam bi mu jublu di 17 avril yàlla nañu ci defal ay xéwal yu foox suñ ñor koy amee ca Mbour man salaam ñu ngi leen ci woo ndax wax dëgg fa yàlla yéen gis nañ rek bu yàggul li ngeen defal soxna sedd sos di soxna Aida moom Serigne Béthio jëwriñ universel gis nañ teraanga yi ngeen ko defal Euh, te sëriñ bi bëgg ci lool taalibe yi bëgg ci foofu la ñuy jaaree di nuyu bu baax universel soxna Batoor moom sëriñ Béthio ak universel soxna Adja Saliou moom sëriñ Béthio di nuyu soxna Aysa Kan sunu sunu wajur di moom sëriñ Béthio ak soxna Mbosi Diouf sunu bàjjen moom sëriñ di nuyu njabootam gépp di ko dalee ci sëriñ Saliou Gueule Tapée moom mooy taaw buñ ko nuyu rek mel na nuyu nañ njaboot gépp jigéen ñi di nuyu bu baax soxna faatim Thioune soxna Nday Mbay di leen jox yóbbante bi ñu ñu ñu séddaleel ñu ko ca kër ga mm. di nuyu ñëpp eh, di nuyu bu baax suñ mbay sa mbay bi ñoo àndal nga xam ni ba ma dooree ba léegi fu ma xaacoo rek ñooy tëgg mm. ak suñu xaadi mbay mm. ak Serigne Saliou xéwal mii nga xam ne tudd naa ko léegi di sama rak nga xam ne ba ma tàmbalee ba léegi maak moomay ànd ñu ngi koy ñaanal moom it yéeneem ci liggéey bii ñu liggéeyal sëriñ bi yàlla na ci am lu foo njortam maa ngi koy ñaanal eh, te di ko ñaanal fii nu toll ci way sëriñ Saliou yàlla na ko weesu waaw ñu ñu ngi ko koy ñaanal di nuyu bu baax eh, waa Dakar Midi soxna Ndey mi nga xam ni ndey ndeysaan lépp ci moom la jaar ak sunu mag ju baax ja le grand colis moom sëriñ Béthio moom it bég na ndax sunu mag la sunu xarit la sunu lépp la koo xam ni bàyyiwuma benn yoon danoo bokk ne ci kërsëñ bi te wax dëgg fa yàlla fu ma amee lu jaaxal moom laay toogal waxtaan ak moom su gisee dara di ñëw loo xam ni lu may def la te te demewut noonu woo ma li ma sama rakki bopp defal nii ak nii kon ñu ngi koy sant bu baax moom it te di ko ñaanal ay ndamam yokk noonu lay nuyoo bu baax ña nga xam ne ñoo ne ci kërsëñ bi ñëpp. ci ni Serigne Saliou Samb nga xam ne moom àdduna xam na ko ci waxtaani Serigne bi noonu laay ziare ña fa nekk ñëpp te di leen nuyu te di leen bëggee waaw. macha allah mbokk yi ngeen dégg kàddu yi nga xamante ni moom la sëñ Tawféex tàggatoo tàggoo bu dul tàggoo ndax euh, fa tabaarakallaahu lu neex du doy xanaa rek dees koy dog dem ba beneen yoon fa tabaarakallaahu te lem nag neex na lool waaye du jiwu mbokk yi man nag danaa la yóbbante leen ndax kuy xalam nag di ca jaayu mbokk yi te dëgg-dëgg te barke ba yaay borom soxna ndey da ngeen ma koy baal mooy cheikh bi man dama koo bëgg a gis man cheikh bi dama ko yittewoo ndax yàlla mosuñoo boole te mosuma xamante wu ma ak moom dama bëgg a xamante ak moom loolu feex maa ngi la koy dénk di la ko yóbbante audience la nag bu ma jaaree ci émission bi ndax fii laa ko mën a amee fii laa am fii laa koy waxee mbokk yi li moo doonoon seen émission bu màgg bi di royal ci moom fa tabaarakallaahu ñu àndoon ceeg suñu xarit suñu am di jàmm mu di tawféex mbaay fa tabaarakallaahu di ki nga xamante ni taalibe Cheikh Béthio Thioune maam Bambi Thiam la di cantaakun ci sëriñ Saliou fa tabaarakallaahu mbokk yi Dakar mi di nii rek lay doxee saa su nekk seen émission royal ci moom ñu indi benn kàngam boo xamante ni ca la muy yëngu ca kër ga mu nekk moom la ñuy fas yéene toog moom fii ci plateau bi weccoonte moom ak ay xalaat bég nañu ci ñëpp kontaan nañ ci ñëpp jàmm daal ñeel na ñëpp tabaarakallaahu dakar midi point net émission royal ci moom seen xarit seen am di jàmm Cheikh baay la Baye baax la woon di leen jox dig daje ci beneen numéro ak keneen di leen wax wa ila liqa wa daanaakumul mudaana ba beneen yoon imaamul anbiyaa